depuis 2012. <laughs> immunité boobu sax euh, yàgg na ci réew mi euh, Pape Sané euh, bu ma juumu Georges Nessa ngi koy junj léegi ak PDS c'était Lamine Faye moo doon def la pluie le beau temps ñu jàppe woon ko sax commandant wala sax général foo gis force de l'ordre di nga gis ko fa mu yore pratiquement même matériel beeg yooyu Macky Sall ba mu fi ñëwee au début ñu ngi doon wax waxu traque des biens mal acquis nañ ko inquiété duñ ko inquiété mujjul fenn est-ce que cette fois-ci quand état bi dina dem ba au bout au suñu ñu mën a situer les responsabilités ba genre mbir yi kenn bañati ko am maanaam koo xamante ni day nekk ci état di def nag su lu noonu te dara du ko ci fekk. waaw ko traité comme un citoyen sénégalais qui a décidé d'être en marche du droit chemin y a y aucun problème mais xam nga li may ragal par rapport à sa question ñu bëgg ko traité comme une affaire d'État waaw c'est vrai que il a été au il a été très proche de certains officiers généraux dans ce pays il a été auprès très proche de certains ministres kooku kenn mënu ko nataabale il a été proche de la famille présidentielle mais il faut ñu xam ni que moom Jérôme Bandiaky la euh, benn lieutenant wala benn euh, adjudant wala benn colonel am ci wàllu euh, prérogative yu ko yoon may ci wàllu port d'arme mm-hmm. d'abord wala ci wàllu détention d'arme mm-hmm. wala ci wàllu usage d'arme moom amul dara dara dara lu ko ko may moom cest à euh, liñ naan euh, nuñ koy waxtee Georges l'État Euh, détient le monopole de la violence légitime moom nag comme bokkul ci état il ne peut pas bénéficier d'une seule parcelle de violence politique de violence publique euh, waaw de violence légitime moom amu ci amu ci wàll donc na loolu la nga gis ko ay ngàndaay yu mu yor nëbbu ko nga gis ko muy utiliser des moyens de l'État notamment des véhicules de la présidence kooku boo ne da nga ko bëgg a régler neneen lu dul un citoyen sénégalais qui à un certain moment s'est permis d'user des des de des de de l'État pour assouvir un besoin parce que yaakaaruma rek. mais est-ce que aussi en complicité ak l'État bi ngay wax ni. est-ce que duñ si boolewaale aussi État bi. mais bien sûr. au premier chef Macky Sall. oui. au premier chef Macky parce que li may wax nervi yi bi ñuy dóor gars yi fële ca Podor wax Matam. Mhm. Macky ngi taxaw ci otom naan nii di mhm. seetaan. Mhm. et jamais comme ni ko Ayoba rappelé tout à l'heure campagne 2012 il n'a demandé aux gens d'arrêter. au contraire il était très content duma leen duma leen leen. mais Pape bu weesoo Macky ñii nga xam ne ñoo yore ñoo yore ñun sunu sunu sunu sunu kaaraange. ñooñu ñëpp nga xam ne ñoom c'est-à-dire ñoom am nañu une mission républicaine. am nañu une mission régalienne bi nga xam ne constitution moo leen ko jox. ñooñoo nangoo jël ku mel ni Jérôme Bandiaky ak ay ñoñom duggal leen ci ay dispositifs na leen dem leen dóor kii dem leen euh, taal kër kii dem leen defi lii dem leen duma lii ak lii ak lii ñoom ñëpp kenn ku ci mun a mucc. Pape je le répète dama koy wax mu leer nañ. Mhm. quand Jérôme Bandiaky yow jote nga fi. bon jote woo sax alkaati tooñ na la ci yoon bi walla li yëg li mais jamais au plus grand jamais mosoo xalaat ne da ngay wàcc sa oto ne dangay ngay mbéj alkaati wala da ngay da ngay yuuxu da nga kër mais moom alkaati bu bip brigade d'intervention polyvalente la joteel parce que waa ji daf koo fekk ci armoire am muy fouillé waa ji duma ko il a organisé une tentative de meurtre sur sa gars yaa ngi mel ni kii nettal ay film nettali ma film lu leer laa la wax de je le dis on est à la radio c'est clair c'est net c'est précis waaw il une tentative de meurtre bu doon tey jii man la mooy dee naa ah, mais kooku dafa am une peut-être une formation ba xam ne moo ko may mu mucc mais imaginez kooku noonu ne la ca jamono yooyu présidence de la république moo bind procureur bi fi nekkoon oui ne ko takk der bi nañu fexe nu ñu koy dàqee. ah oui. lu leer. ani kooku ku ñuy dàqoon anam agent bi boobu. dàquñu ko dañ ko relever sànni ko ci àll bi. l'État du Sénégal perd des million pour former un agent de protection. Mhm. des hautes personnalités. Mhm. après ñu koy jël dem sànni ko ci àll bi. parce que y avait un Jérôme Bandiaki bi nga xam ne bëggoon na di ñëw bip. di tëdd di mais mais mais il y des photos su ma la su ma la ko joxoon nga nga xool ko fii yow tu vas tu vas te dire non da nga naan non kii non fii du bipp alors que c'est à la bip dans la chambre de agents c'est-à-dire nga xam ne agents yi fa nañ jëj seen matériel foofu lay ñëw tëdd jaaxaan ne yow ah non non mais. mais non dama ne su ma loolu fu mu mën a nekk soit da ngay nekk bip wala nga doon euh, bon policier sax boo fa duggee amoo fa accès. Ah. moom lan la woon agent bip la woon wala policier la woon. wala gémi du woon agent bip. du gémi. du gémi. du policier. du policier. du alkaati. du ci benn. waaye simple militant parce que kii la. Euh, waaye c'était le waaye c'était le protégé des en haut <coughs> le protégé des en haut d'en haut fu ko neex mu dugg. waaw non xanaa ku déggoo ma la ku dem ba. naan da ngay ubbi casier wu élément bip. Hmm. pour xool matériel am. moo xam boo fa fekkoon matériel bi xëy na da nga koy jël. non xam nga xam nga xam nga xam nga genre nit ñooñu. Hmm? Euh, xam nga koo xam ne par exemple un policier bien formé wala hmm. un gendarme bien formé am na yoo xam ne ñemoo ko def. ñemoo ko def parce que il se dit que lii lii la ma yoon may. xam na lu buy buy euh, buy def un euh, maintien de l'ordre war leneen ak leneen ak leneen xam na naka la koy xam na naka la koy defee. Mm-hmm. xam na nu mu ko jàngee mais ki nga xam ne comme genre yooyu jànguñu ko xamuñu ko li nga xam ne yoon euh, li policier bi ñeme ñeme un policier bien formé lu mu ñemewul def kooku ñeme na ko def. ñeme parce que voilà c'est des gens foutistes. ils se sentent protégés comme ni mu la ko waxee léegi rek ils se sentent protégés ils sont intouchables au contraire sax ñi nga xam ne ñoo nekk des des des hauts gradés ñu nekk police wala gendarmerie ñemuñ leen laal donc ñoom ils sont là pour le sale boulot malheureusement mooy lu ñuy tuddee ay hommes de main daal oui oui c'est-à-dire de main voilà loo xam ne lépp loo xam ne euh, policier bi en policier yi nga xam ne bien formé ñemoo ko def ñoom ñema nañ ko def mhm. parce que da ngay mën nga ànd ak benn policier wala nga ànd ak benn gendarme sax ngeen taxaw war a arrêté benn nit policier bi taxaw di la xaar moom mu ne bàyyil ma régler ko par par d'une autre manière. ñeme na la taxaw saaga la li nga xam ne par exemple en policier wala gendarme du ko def. def si. il te maltraite bi nga façon bi nga xam ne yow da ngay naan mais kii il kii. <laughs> mais ça ça dañ koy gis. malheureusement je le je le di encore et je je je le regrette encore une fois ces gens là ils de leur de de de de des passé. Mm-hmm. mais parce que aussi il y a une certaine impunité. oui mais bien sûr mais impunité boobu nag dama ne. cest à ñooñu. xam nga tey jii Lamine Faye bi mais Georges xam nga Lamine Faye ñi ngi ko doon jiiñ genre euh, kii yooyu ba ci 24 heures chrono cité woon nañu ko ci. Euh, dara fekk ko si euh, Pape Makhtar Diallo aussi ñu ko jëlee def ko homme de main day jàpp nii comme ki fi nekkoon doon def loolu ne dara fekk ko ci Pape Makhtar bu ñëwee def lu ko neex dara du ko ci fekk. mais bien sûr mais looloo tax ma ne la boo bu fekkoon ne par exemple tu as acheté tout à l'heure le cas de Lamine Faye. tey ko am fu ñu jaar ak oui kon bu Macky Sall bu Macky Sall ñëwee. ku ko sant mu kenn du kenn du copier cet exemple là. effectivement. et que aussi que ce régime là de Pastef là également du am kenn koo xam ne dina dem a dem ba beew ba bëgg def wala comme les autres l'ont fait. <laughs> là loolu je crois que c'est à éradiquer moo tax ça doit servir d'exemple. <laughs> voilà moi je crois qu'il va colla collaborer coopérer avec les enquêteurs. boo wax leen lépp loo xam ne bu fekkee ne nag daa am ne haut gradé yoo xam ne ñoo ko doon sant bu liggéey boobu mu doon def. oui ces salles bu daa am ne ku ko doon sant. qui qu'elle puisse être. mais mhm. kooku je crois qu'il mhm. wax na lu am solo Ayoba Faye mooy que mbir bi dañ ko waxee di éradiquer euh, te aussi euh, waa ji servir exemple pour ñi nga xamante ni euh, dañu bëggoon voilà di continuer di perpétuer cette mauvaise pratique. bien sûr su may wax d'habitude pour ñu restaurer l'état de droit pratique yu mel moo moo taxoon parce que dafa demoon ba ancré ci suñu suñu doxalinu république bi. te Macky dafa dem woon ba euh, gëmloo Sénégalais yi ni lii dafa dafa dafa normal alors que c' totalement anormal. Mm. benn agent boo xam koo xamante ni du agent de simple agent de sécurité la amoo formation militaire nekkoo ci police bi nekkoo ci gendarmerie bi nekkoo ci corps yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a ñoom ñoo gën a élevé ci ci ci suñu suñu force de défense et de sécurité yi nga am droit benn droit bi ci ci ci ci ci ñoom quand du di dugg bip di def nu mu la neex euh, di nekk ci cortège yenn saa yi bu gars yi di intervenir sur le terrain le terrain. di def le sale boulot euh, loolu pour man daf fi daf fi daf war a jeex et et tu as parfaitement raison euh, le cas Jérôme Bandiaky doit pouvoir servir d'exemple soo demee benn soo France il y a eu l'affaire Benalla mm-hmm. Benalla c'est un agent de sécurité boo xamante ni euh, sécurité rapprochée bu Macron la bokkoon la brutaliser ay militants moo tax tey jii Euh, ñu relevé ko fi mu nekkoon ba mu mu am ci sax condamnation en justice euh, donc euh, c'est c'est c'est c'est pour te dire que suñu état de droit bi dafa war a dafa war a am ay cëslaay yu wóor yoo xamante ni genre genre pratique yooyu waratuñ ko permettre waratuñ ko permettre benn régime boo xamante ni boo fi nekk di doxal waratuñ ko permettre benn homme politique. que ce soit président de la république premier ministre wala sax ministre euh, nga am sa benn homme de main boo xamante ni il se croit tout permis di dugg di def lu ko neex même ci euh, ci ci yenn ci yenn yoo xamante ni euh, ci ressortu police la wala wala gendarmerie wala sax wala sax armée loolu je pense que ça impunité bi nga bi ngay bi ngay tudd noonu sànq dafa war a dafa war a dakk une bonne fois pour toutes et cette affaire ci doit servir servir d'exemple une bonne fois pour toutes réew euh, impunité war na fi dakk Pape Sané ci même réew reddition des comptes aussi war na mën a am ci dëkk bi yaakaar naa ci yooyu la tànk la autorité yi nekk jamono ji euh, bu ma jumul sax Lat Diop mi ngi fële